yeneen xeeti naafile yi ci des nag mel ne li ñuy wax àllarba yi kare ak julli gi ñu julli ci bésu tamxarit ak yu mel ne yooyu gannaaw bu ñu tegee fee wax yañ cee wax ci wàllu sax na ci sunna wala déet boo ñëwee ci def gañ koy def mbooloo moom dañuy wax ne sib nañ ko ndax mbooloo mu bari dajaloo di julli julli naafil rekk dañ koy sib bu fekkee ne itam mbooloo mu bariwut waaye béréb bañ koy defee daa siiw ñu xam ko it ñu sib ko bu fekkee nag mbooloo ma bariwut te defewuñ ko ci béréb bu siiw siiw bu ñu xam a xam kon deesu ko sib ni ki ñaari nit mbaa ñett mbaa ñeent rekk dajaloo julli julli naafila def ko mbooloo te defewuñ ko ci béréb boo xam ne bu ñu siiw la bu ñu xam a xam la loolu moom deesu ko sib mu mel ne kon jullit tamxarit googu ñu def mbooloo ak jullit adarabay kare maanaam adarba ji mujj ci waru safar ak jullit fay faat yi mel noonu taam mu ñu def ko mbooloo suñ béréb yi nag moom ñu bari ci jigéen ña mag ñi xëy na bu dee ñoom dong duñu ko mën a defal seen bopp xëy na moo tax ñu koy def fii mbooloo ci jàkk yeeg yooyu waaye daal ñu xam ne rek julli mel noonu képp koo xam ne mënal nga ko sa bopp nga beru def ko lañ gën a taamu bëgguñu nga dem ca mbooloo ma bu dee julli jumaa moom mbooloo ma ab sart la ci doon julli jumaa bu ñu ko kenn kennoo rek du baax dëkk ba sax mbaa nga ne béréb boobee sax bala ñoo taxawal jumaa dañuy sartu mbooloo ma bari bariwaay boo xam ne daañu doylu ci seen bopp ba lu ñuy def man koo defal seen bopp duñu dem di ñaani ku leen ci dimbali ci beneen dëkk bu mbooloo ma baree noonu nag bañ taxawal jumaa ba noppi su fukk ak ñaar teewee yu bokkut ak ilimaan rek mu daldi doy waaye nag mbooloo ma kat mënta manki fukk ak ñaar yu bokkut ak ilimaan noonu la ko waa Malik di waxe wa fadluha ngëneelam sabuhun juróom ñaar la waa ashruuna ak ñaar fukk ci ay daraja ataa dikk na moom ngëneel loolu li mudrikin ñel aju jot jamihaha lépp julli ga aw rakk xatan wala benn rakka julli mbooloo nag gëne na julli kenn lu tollook ñaar fukki degare ak juróom ñaar ci wax yinu benn addis bi wala ñaar fukki xaaj ak juróom ci wax yinu addis ba ca des moo xam da ngaa fekkee lépp julli mbooloo ga mbaa nga fekkee ca benn rakka bu mat rek da nga am ngëneel loolu du tee nag nga fekkee lépp julli ga tàmbalee ca liqaam nga ba sulmal muy ëppale tuyaaba ka fekkewut loolu lépp dañuy wax ni sax buñ ne ngëneelu julli mbooloo ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar la duñ ca wàññiwaale tuyaabay jullik boppam nga xam ne kon su àndee jullik mbooloo dana am tuyaabay ñaar fukki jullee juróom-ñett ndax ñaar fukki juróom-ñaar duñ ci boole ak julleem bu julli woon moom dong ci bero dañuy wax ne nag mbooloo ci julli mi ngi tàmbalee ci ñaar nga xam ne ku julli ànd ak soxnaam ñuy ñaar rek daal nañuy nekk mbooloo teewul na ñuy wax ne ku julli moom dong gannaaw ba bu gisaatee kenn képp kuy julli su àndeek moom baamu it ndegam kenn kooku nekkul ilimaani raatib du tax nag mu am ngëneelal mbooloo su xësee jullee ci mbooloo rek nag su gisaatee meneen mbooloo mu gën a bari mbaa mu gën a bari gaa yu baax itam du tax nag mu saña baa mu waataat jàpp nañ ne sax mbooloo ma gën a bari gën a bari ay gaa yu baax jullee ci moo gën jullee ci mbooloo melul noona waaye nag su xasee am julli mbooloo rekk bu gisaatee meneen mbooloo itam du tax mu mën caa baamu ak julleem ndax bëgg am ngëneel lu gën a bari ngëneel lu ëpp lam njëkkoon a am fekke lépp julli gi ak fekke ca benn rakk lu mu ci mën doon rek am nga ngëneelul mbooloo li noonu la waaye nag niñ ko waxe woon rek fekke lépp julli ga mooy ëpp tuyaaba fekke leen la moo xam ràkk la moo xam lu ko ëpp la fekke lépp mooy ëpp tuyaaba nga xam nee nañ ku armal ba képp raw rawante na ràkkab lum yiwu réy réy raw na la doonte fekke nga ca benn ràkkab mat sëkk ànd ak sujjóot yaag yëpp yëpp du tee rek nga ne lu réy réy raw na la yu wañu du dana baamu fadun kenn max imaamin ànd ak ilimaan in yasha ndéem dana ko soob in yasha mooy nekk ci way wi la maghriban du jaageewum timis aw baada witrin wala ci gannaaw wetar lil hisha ñeel gee sopp nañu nag boo jullee yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo muy julli nga ànd ak ñoom ndax nga am ngëneelul mbooloo loolu sopp nañ ko nee nañu nag bu dee kenn dong te nekkul ilimaani raatib moom kenn rek jëlul ngay baamu di ànd ak moom ndax buñ ne itam mbooloo mi ngi tàmbalee ci ñaar nu wax ne kenn rek bu jullee ànd ak soxnaam daañu am ngëneelul mbooloo taxul na ñu yemale ko mu julli moom dong gannaaw ba nag mu gis kenn képp kuy julli te du ilimaani raatib bu doon ilimaani raatib moom moom képp bu jullee itam day wecci mbooloo nga xam ne fa mu daa jiite bu fa jiitee ci waxtu wa nga xamee ne ci la daa jullee moom dong bu fekkoon ne moo julli it teewul am na ngëneelul mbooloo nga xam ne moom du sañ a baamuwaat ci meneen mbooloo moom ilimaani raatib jooju ilimaan jooju nag koo xam ne julli woon nga yow dong boo ko gisee muy julli soye boo ànd ak moom ndax moom wecc na mbooloo waaye nag bu dee kenn koo xam du ilimaani raatib moom du jar muy baamu ànd ak kenn kooka rek am na yaari julli yoo xam ne nag boo leen jullee yow rek itam doo leen sañ a baamuwaat benn ba mooy timis timis moom dañ ko yoonal mu tóol te soo ko baamoo mu tóolantiku kon timis boo ko jullee yow rek gannaaw ba ko gis mbooloo itam doo ko sañ a baamu ngir am ngëneel gee itam gannaaw boo wetaree ba noppi doo ko mën a baamooti bu fekkee ne wetaragoo nag boo gisee mbooloo mën ngaa baamu ca mbooloo ma ndax nga am ngëneel wa sharaitul imaami sart ilimaan xashratun fukk la fa zakarun mooy góor bil xaqli ànd xel wal islaami ak dugg ci lislaam bokk ci wàll islaam sart yi tax ilimaan mat ilimaan fukk la ba jëkk mooy nay góor jigéen moom bu jiite jigéen ne moom rawante na góor te na ànd ak xelam ab dof kum jiite doonte sax nam jullee tegu na ci yoon wa ndax miinoon na ko laata muy dofit du tax yow moom jiite nga baaxle te it kooko dugg ci lislaam bu nit doon sol yére jullit jiite la ay ati at gannaaw ba ñu xam ne moom ko doon ab jullit ni ki mu waxal ko boppam ne du ma woon ab jullit kat dama daan nangam ak i nangam ku mosaa di jiite dana aajowo nga seet lam la jiite lépp nga baamu ko wa qudratun ak man ponk yi qudratun mooy fii kàttan waaye mooy man maanaam kay jiite day man ponki wax yi te mooy mën a kàbbar armal mën a jàng fatiha mën a wax asalaamaaleykum man tam ponki jëf yi ni ki rukoog sujjóot ak taxaw ak yooyu yëpp waaye lu mu ci xëstali rek du mën a jiite ku ko man su fekkee dafa luu du mën a jiite ku luuxut su fekkee dafa amee ak wéradi ba mënta taxaw toog rek la man du mën a jiite ku mën a taxaw am na sew-sew bu nekk foofu rek bu ñu nee ku tëlee ab ponk mën naa jiite ka ku tëlee ne moom su fekkee ne moom day junj rek maanaam mënta rukkoo mënta sujjóot da koy junjal day junjal rukkoo ba da koy mépp rek mook sujjóot ba bu amee keneen ku mel ne moom nga xam ne moom it day mépp mooy day junj rek rukkoo mook sujjóotam du tax kenn mën caa jiite moroom ma kon jàppal ne almoomi u almoomi u aji junj moom laa yusalli illa munfaridan aw ma'muman aji junj moom nga xam day mépp rukkoo ba ak sujjóot ba benn mu julli moom doot moo tax saraa bi naa falxaasilu annal muumi a laa yusalli illa munfaridan aw ma'muman su fekkee ne dafa tëlee rukkoo mbaa sujjóot ba nga xam ne da koy junj rekk junj daa amut ab limite moo tax kuy junj rekk rukkoo ak sujjóot du mën a jiite koo xam ne day junj ne moom rawante na nag ku mën a rukkoo mbaam mën a sujjóot lu bokkut ak loolu nag ku ko tëlee da nga mën a jiite ku ko tëlee ne yow niki ku mënta jàng ndax dafa lu mën naa jiite ab lu ne moom ku mënta taxaw day toog mën naa jiite kuy toog ne moom almoomi u aji junj mooy koo xam ne tëliwut dëgg-dëgg rukkoo mbaa sujjóot am na lu mu ca man nga xam ne dañ koy wax ne ko da ngay sëgg ba fa nga mën a yem nga yem fa bu dee ci sujjóot ba nga xam ne moom moo gën a suufe rukkoo da ngay sëgg bu baax ba àgg fa nga mën a yem bu dee ci rukkoo ba nag nga xaw a wàññi la nga man ndax sujjóot bi gën a suufe rukkoo ba kooku mooy aji junj ndegam nag ñoom ñaar buñ bokkee kenn ku nekk di def loolu xëy na maa moom ma gën a mën sax ilimaan ba sëgg boobee ñuy sëgg ba fañ mën a yem xëy na maamoom ma gën koo mën ilimaan ba looloo tax ñàkkee am nattuwaay bu wër a wër moo tax duñ nangu kenn ci ñoom ñaar jiite moroom ma wal xilmu ak xam nga billazi ca la nga xam ne billazi ci sàll moo doon billazi yi yeltamu dana war min fiqhin ci fiq aw xiraatin wala jàng bokk na ci sarti ilimaan kooka xam lay tax julli gaa wér ci wàllu njàng ma ak sarte yi ca des wàllu njàng mi ndax xam nañuy jàngi faatiha nga xam ne dana ko njàng njàng mu wër indi sàdd yaag mbijikaan yaag yépp dara du ca manqué xam nga nañuy jàngi faatiha bu wër moom farata la saar wa cay topp sunna la moom itam mu xereñe saar wa cay topp xam nañ koy jàng buur sunna la wàllu fiq bi nag moom na xam lay tax julli gaa wér ak lay tax julli gaa yàqu am na nañu wax ne su xësee xam nañuy jàppee xam nañuy jullee rekk doonte sax daa fekk boroom xam-xam mu gis na muy jàppee ak na muy jullee mu roy ca moom ba du ca bàyyi dara dara rekk dal nay doy noonu sax la saraa bi waxee ndax dane wal muraadu bil fiqhi huna ilmu ma yataallaqu bisalaati faqat kama yufhamu min almaqaam wa yakfi ilmu kayfiyatiha wa kayfiyat lwudui in axada alwasfa an aalimin ala almashhur ci gàttal daal bu ñu nee kiy jiite war naa xam àttey julli ga la gën a mat mooy lépp lu aju ci julli ga la koy tax a baax ak la koy tax a yàqu yépp lay ràññee bu baax a baax teew nag wax nañ ca jàppandal ne yonent bi daa waxoon rekk ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gis ma di ni jullee ndegam nag gisuñu yonent bi waaye am na ay boroomi xam-xam yu ko wuutu dañuy jàpp ne kon ku gis boroom xam-xam muy julli mu xam na boroom xam-xam ba jullee mu roy ca moom jullee noonu rekk dal nay doy ku mu jiite itam sa julli baax lu may nag mu defaat ca biir lu yàq julli ga amaana koo xam ne xam-xam noonu la gàtte mu def ca biir lu yàq julli ga te du ko yëg waaye moom daal ndegam na muy jullee ci zahir moom dara mangi wu ja ku mu jiite itam mu baax moo tax borom saraabe di wax naa wa kafa ilmu kayfiyati dhalika walaw lam yumayis al farda min as sunnati bi xilaafi man yaataqidu al farda sunna moom daal bu xësee xam nañuy jullee rek doy na donte xàmmewul sax lan mooy farata ak lan mooy sunna lay bonde mooy mu fekk loo xam ne farata la moom mu jàppe ko sunna lay baax daal mooy mu jàpp ne julli gi am na ay farata am na ay sunna taxul nag mën leen a ràññeele mbaa mu jàpp ne julli gi lépp ay farata la lay bon daal mooy mu fekk loo xam ne farata la moom mu jàppe ko sunna kay jiite bu ko loolu dalee nee nañ jiite ga du baax ndax day def ne bu fekkee ràññeewul yooyu rek am na sew-sew yoo xam ne mën nañoo yàq julli moom du ko xam bu ko defee nag julleem yàqu yàqaale julli ñamuy jiite muxtalimun day fi kuy aji gént waaye dafa jublu kuy aji kàllafe bu fekkee kañuy jiite muy maamoom muy kenn muy mbooloo kàllaf la kay jiite faaw mu nekk kàllaf ndax gone moom julli daa warul ci moom ak julleem daanaka naafila la te mag mi nag moom ak julleem farata la moo tax gone mën naa jiite moroom ma waaye bu dee julli farata moom faaw rek mu kàllaf mi mu kàllaf ne moom moo koy jiite bu ko gone jiitee rek moom mu kàllaf ma du baaxle bu dee naafile nag gone mën na caa jiite gone ne moom na mën a jiitee ci farata gone ne moom mu des nag gone jiite mu kàllaf jullig naafila mel ne lu àgg ci waru koor gone mokkal alquran tax ñu di ko jiital muy jiite ay mag loolu suñ ko defee dana yër waaye nag jekki-jekki song def ko sip nañu ko maanaam bañ kaa def moo gën waaye suñ ko defee itam na dutee julli ga wér kon ci gàttal gone bu jiitee mu kàllaf jullig farata mu kàllaf ma bu baaxle gone nag mën naa jiite gone ne moom saa yu nekk moo xam farata la moo xam naafila la walay sa ma mooman te fekk nekkutoon maamoom kay jiite ba mu doon koo xam ne julli googee njëkkoon na caa nekk maamoom ne kii boo gisoon nit muy julli nga defee ne julli bopp mi lay julli ndekete moom day tolloo la ci jumaa ji mbaa day tolloo la ci keneen ba àndeek moom itam sa julli du baax ba tey sax mën naa am nga ànd ak nit ngeen ñëw ñu raw leen ci julli ga bu ñu jógee bay fay kenn ku ne daa war a àggaleel boppam waaye bu kenn ka àndeek moroom ma ca àggale ga rek moom ma nga xam ne moo roy moo yàqule nde kam roy ca moom def ko ilimaan moom du yàqule kon nga takk foofu ne ñaar wala ñett ak lu ko bu ñëwee fekk ñu raw leen ci julli ga bu ñu àggalee kenn ku ne day àggale julli boppam te kenn bañ caa roy ca moroom ma su fekkee nag ilimaan da doon jiite ba yàgg mu am ngànt am ku mu wuutal nag kookee mu wuutal moom sottiku na ilimaan ca gannaaw ba mu nekkee maa moom waaye du tee julli ga wér na ndax wuutal gaa ko taxawir wala moo ay dan du caagéenu aji baamu ba tey koo xam ne julli woon na julli farataam ba àggal dane day baamu ak julleem ndax am nga neelul mbooloo kooko ci bopp bu mu jiite nañ ko jiite mooy ka julleegut na jiite waaye moom mi nga xam ne julli woon na daa bëgg am nga neelul mbooloo rek bu jiitee ka mu jiite moom du baaxle moom dana baaxle ndax julleem bu njëkk sax baaxoon na kon nag moom ci bopp bu mu jiite ka julleegut na jiite xurun gor muqiimun kuy aji sax siida dolleef na ko fii jumhatin ci jullig jumaa bu dee jullig jumaa dañuy sartu ilimaan ja nekk gor ndax jamono yi ñu amee teqale gor ak jaam jaam jullig jumaa waru ko woon gor rek la waroon te nag ndegam waru ko du ca mat ilimaan sax gi itam na koo ko dëkk fa dëkkub jumaa ja mbaamu ñëw fa nar faa nekk ñeenti fan yu mat ci fa dëkkut te yéene faa sax ñeenti fan rek ba julli gi war ko mën naa jiite waaye nag bu fekkee dafa tukki si rek dëkku fa te it nuru faa toog lu mat ñeenti fan ba julli ga war ko kon du mën a jiite wa xashratun fukk makruhatun yu ñu sib lañu fi naqli ca toxal ga imaamatul aqtaan te mooy jiiteg aju dog ab cër wal achalli ak aji làggi day bëgg a wax ñi nga xam ne buñ jiitee dana baax sax waaye daañu ko sib nga xam ne baneen gaa def moo gën dafa njëkk a tudd nag ilimaan joo xam ne ay cëram daa am bu ca dagg ci dogalu bi yàlla mel ne ab loxoom dagg mbaa benn ci baaraamam mbaa ab tànkam kooku sib nañu mu jiite ndax buy sañoon ilimaan day nekk ku mat sëkk bañ a manqué dara ba tey ilimaan ju làggi ak nu mën di laagoo rek sib nañu ak jiiteem saraa bi day wax ne nag ñooñ ñaar sibuñu ci kenn moo ne day siiw na ci téere ci des itam ñu wax lu mel ni li boroom téere bi wax waaye saraa bi dane wa ma masha alayhi naazimu daif wal mu'tamadu xadamul karahati fihima wadi xuruuxin ak boroomi góom aw salasin wala boroom njokkale li saxiixi ñeel aji wér ku amee góom yoo xam day nàcc ka xelli moo xam deret mbaa dëtt lay xelli mën naa amee góom mën naa amee ay taab yépp benn la ku mel noonu sib nañ muy jiite koo xam ne amewul ay taab mbaa ay góom nde sax mu jiite ku mel ne moom moom sibuñu ko ku amem njokkale njokkale mooy daa am luy génn ci moom loo xam ne sobe la waaye nag ak wéradi la ba du yàqati dara ci ak julleem mbaa ci laabam niki muy jokkale njokkalem saw wala masiw wala leneen ci yi nga xam ne daal day yàq ak laab kooku bu jiitee mu baax waaye sib nañu mu jiite ku melul ne moom maanaam koo xam ne moom amewul moomu njokkale nde sax mu jiite ku amee moomu njokkale moom sibuñu ko kasaaka naka noonee arabiyun ab sàmm ku dëkk ci àll ba di topp ci jur ga nga xam ne du faral di jaxasoog nit ñi ku mel noonu topp ga mu topp ci jur ga day feeñ ci jikkoom mu nekk ku jàgg ku naqari deret ku naqaree jëf leen téel te loolu taamuñ ko ci ilimaan moo tax daañu sib mu jiite ku melul ne moom nde sax mën naa jiite ku dëkk àll ba mel ne moom ca topp ci jur ga waaye nag mu jiite ku dëkk ca taax ya di jaxasoo ba amee ak neex deret ak nooyu jikko daal loolu lañu sib moo tax mu moo tax mu teg ci walaw darasa ak doonte mokkaloon na zikran alquran su dàqoon na jàng itam ndegam moom day topp ci jur gi rek ba amee woowu melo sib nañu muy jiite koo xam ne melul ne moom jamono day soppiku fii mu nekk nii ñi dëkk ci àll bi dañuy jaxasoog ñi dëkk ci taax yi bañ doon benn nga xam ne ñu bari ci waa àll bi mën nañoo gën a rafet jikko gën a nooy waa taax yi mën naa am ku nekk ca taax ya dëkku fa ab dëkkuwaayam mi ngi fii ci àll bi xam day boole jaxasoog waa taax ya di jaxasoog waa àll bi takk-takk bi daal mooy koo xam ne dafa dëkk ca àll ba du farlu gisanteeg kenn di jaxasoog moom bay jële ci moom neex gu deret ak jëflante gu rafet ku mel ne kooku daal di jiite ku melul ne moom lañu sib wa misluhu am kemam la tarattubul xasi yi doon raati bu ku ñu tàpp aw axlafin wala ab aat ab aat mooy ku xarafut ma boonin ak ngóor jigéen aw bidaayin wala kojug bidaa ma joxooli xaalin ak ku ñu réere mbir aw imaamin wala ilimaan yukrahu juj def na ko sib ilimaani raatib mooy koo xam ne ka tabax jàkk ja wala ilimaani jullit ñi wala jullit ñi ñoo daje jiital ko mu baaxoo jiite ca jàkka joojee mbaa jumaa joojee ñu fekk nag ku ñu tàpp mbaa ku ñu dagg sàkkaraam mbaa ku ñu dagg yaari waa yàllaam ñu def ko ilimaani raatib sib nañ ko ndax day tax rek ñu di ko teg ay baat naa seen ilimaan ji nangam ak nangam ki mu ci teg mooy ab aat ku xarafutit noonu la ku xaraful koo xam ne ngànta tax maanaam ngànt ko te xaraf sib nañ ñu def ko ilimaani raatib de bu fekkee ne ñàkk nga xaraf moom du ngànt kon duñu ko jiitaloo ndegam la ko tee xaraf ci coobareem la buñ ko jiitaloo buñ ko seereloo ba tey kuy nur nur lu jigéen ñu koy wax ngóor jigéen nga xam ne ci waxinam ak ki definam da ci roy jigéen ñi mbaa boog daana jëf jëf ju ñaaw ji ca buntu suuf ba waaye walbatiku na tuub ko ku mel noonu sib na ñu def ko ilimaani raatib mu tëb tëb jiite rek moom sibuñu ko waaye nag ñu def ko ilimaan fal ko muy raatib loolu sib nañ ko koo xam ne it pas-pasu lislaamam dafa sellut ñu koy tuddee pas-pasu bidaa bu dee ahlu sunna dañoo jàpp ne pas-pasam ñaaw na rek waaye àgguñ ci nag ci jàppe ko ab yéefar ku mel ne kooku sib nañ ñu def ko ilimaani raatib dafa jublu saaxibu bidhatin lam yukaffar biha ay lam yaxkum alayhi ahlu sunnati bil kufri bal bil fisqi faqat ku mel noonu sib nañ ñu def ko ilimaani raatib ku ñu umpale mbiram mooy xamuñu ku maandu la xamuñu ku kàccoore la sib nañ ñu def ko ilimaani raatib ilimaan joo xam ne ña muy jiite bëgguñu ak njiiteem te la tax ñu bañ ak njiiteem mooy lu aju ci wàllu diine ni ki dañoo gis moom muy ab jëwkat mbaa mu di ràmbaajkat mbaa mu di ku bari la wax lu amut te di ko tey mbaa muy ku ñaawu làmmiñ tax nag ñu sib ak njiiteem kooku la gën mooy na daal di bàyyi jiite ga ndegam daal mbooloo mi sib nañ ak njiiteem te lee tax na daal di bàyyi bu ñu siboon nag ak jiiteem ci kaw rek ñàkk déggoo ci àdduna nit ki dañoo mës a xuloog moom ci alal mbaalu ko nur rek loola moom du ko tee mën a jiite suñu bañee jiite itam du tee rek nawee ci jiite ga bu ko loola tax a bàyyi waxad karihoo sib nañu alxabda jaam ba laa fi jumhatin du caagéenu ci julik jumaa ab jaam itam ñu koy def